wa asalaamaaleykum assalamu alaikum, assalam alaikum wa deux fois deux cent pour cent Pikine am lu xew lan mo xew wa deux cent pour cent Pikine ñooy def réunion bu mag fan nañ koy defee centre culturel Léopold Sédar Senghor fii si Pikine ñu koy wax oxygène Ñi ngi wo ñep ñëpp nee nañu ñu les grands lutteurs de Pikine Ñi ngi wo woo Eumeu di si wo Ama di wo Boy pour ne pas ñi ngi woo écrit yi nekk Pikine yëpp ñi ngi woo les présidents de l'écrit di woo les les les entraîneurs ñi ngi si woo président des fans club di si woo les lutteurs di si woo tous les membres de la lutte de Pikine kañ lay doon le jeudi lay doon di nekk le 2 juin fii si Léopold Sédar Senghor de Pikine nee nañ daal ñi ngi si woo ñëpp waa 200 Pikine dóorandoo jàppandoo euh, àndandoo macha allah yàlla jox ñu li ñu bëgg ñu ngi si woo ñëpp bëgg nañ nag ñëpp ñëw fan lay doon fii lay doon si état si euh, euh, centre culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine nekk jeudi le 2 juillet 2022 à 17h nee nañ bu ko kenn manqué suñu déggee lii nga xam ne convocation baa ngi noonu les membres de Pikine 200 de Pikine ñu ngi def seen réunion le 2 juillet fii si de Léopold Sédar Senghor de Pikine nee nañ nañ bu ko kenn manqué à partir des 17 heures ñu ngi woo ñëpp jërë ngeen jëf